bi lay bayit mam jaara mam jaara jëf ku ko xam sag waara soxna jaara buso ku ko xam sama dëgg dëgg lay béyit mam jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam sag jara kañ cay bàkk te yaayoo tagg mu ab gàkk tey bàkk te yaayoo tagg mu ab gàkk na jaara yaa jara way yaa jara kañ cay bàkk mu ab gàkk tey bàkk taayoo na jaara yaa jara way yaa jara kañ tey bàkk taayoo tagg mu ab gàkk bakktaayo oh. ko jeeg sa jëf ji kenn fekkule ci waaye sa pay ji kenn it fekkule ci am Sëriñ Basiru mooy waañu ñu soxna taal bëgg sëñ Abo Mbacke moom Daaru Salaam di sant nag di gërëm neex lool nag di def lu baax di wax lu baax tekku ndaa leeg njugam wàllu mi ci njuróomi albaaba seeni mbay na munu dara mbax ndax moom di ko ñaanal nag fu mu bëgg a yegg yàlla na fa yegg ak njabootam ndax lu na la ñuy defal bañalu nu dara gis nga ko nii dañuy togg di lekk di togg di tuur di togg di joxe dañuy joxe ba gisatuñ ku ñu jox ñuy togg di tuur lii nag la nekk fii ba Daaru Salaam tubaarkaala macha allah ñun na namunu dara nag ndax moom ñu ngi koy sant di ko gërëm samedi lan fi ñëwoon ba nëga ni di togg rek di joxe waaw te namunu dara te duñu togg nag na naqari lu neex rek la ñuy togg nag xar yaa nga ne yeewe nag yaa nga ne gileem yaa nga ne dañuy xëy di rey suba ba ngoonu tëdd ne la buñ xëyee dellu ca dara manqué wul nag ñu ngi koy ñaanal fu mu bëgg a yegg ko njabootam yàlla na fa yegg ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax kontaan nañ ci moom suñu xol sedd na jërëjëf dëkku naa leen juga yàlla na fi yàgg te ku liggéey fayu soxna jaar moom ku ko liggéeyal di nga añu ndax lu baax la doxe foofa ànd ak sëriñ bu baax bi ba agsi Porokhane gi xam nga ne moom déggum digal ak dox lu baax ak fonk kilifa moo ko andi fii moom moo tax mu dox ba nii danoo bëgg naka mel ni moom nu it bu nu melul ni moom it def lu mel ni moom ndax fanweeri at rek la liggéey def am lu mel nii loo xam ne jën jigéen mënu ko am ku dul moom jenn jigéen ju mel ni na jaara jafe naa am moom dong ko am gi màggal jenn jigéen dong ko am muy na jaara busal jaaratul laay maam jaara busal kontaan ci moom lool nag barke sëñ Fallou machine bi moom sëñ Abo Mbacke moo ko moom xalifa bu Daaru Salaam ndax borom kër gi di eh, rakk soxna Anta Ndiaye sëñ Abo moom mooy wasilaam ci la jokku machine bi tubaar kàlla macha allah sëñ boo ko fi indi te xam nga ne lu baax rek lay def bàllay sax machine bi tubaar kàlla ñun gis nga ni ñu def rek dañuy xar soble rek lépp moo koy def. da ngeen si digg bi rek mu mu. xar rek mu yeggale fajar ba tubaar kàlla gis nga booli yaa nga ne. macha allah tubaar kàlla dan daa fajar ba sunu loxo yi kuuñ tey moom tubaar kaala ñu ngi nii rek silvissé rek nii rek la ñuy def xar rek bu nu xaree rek mu daal di fajar. fàttali ma tur bi soxna Anta. soxna Anta Ndiaye. soxna Anta jax moom Daaru Salaam taal bépp sëñ Abo waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa maa ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax di gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Abibu maa ngi lay sant bu baax a baax euh, man Fallou Thiam laa tudd taalibe sëñ Abo Mbacke ca Daaru Salaam ah, yàlla def na tamit may jëriñu wi. waaw euh, dëgg la liggéeyu màggalu Poroxaan nag euh, bu màggal gi jeexee rek ci ëllëg si rek lañ koy tàmbali. waaw jëmalee beneen yoon ndax boole nañ ko suñ cahier de charge waaye ñi ngi ñëwoon depuis lëndi altine lañ ñëwoon am nañu ñëwoon dimanche sax waaye ñun waa waa ñëw nii altine lañ ñëwoon altine lañ ñëw togg añ togg reer depuis boobu ba léegi nag ci loolu lañ nekk euh, mën naa la wax nag tuuti ci lu bari nag ndax fii li fiy wax lépp li fiy jëf lépp ku ko waxoon doo fi jóge ndax euh, ki koy deflu ak ki mu koy defal ak ñi mu koy defloo la bon ñetti mbooloo yooyu ñoo fi daje ki koy def mooy Serigne Ablaye ja ki mu koy defal mooy ab sëriñam bon ci ak keesam la nekk ñi mu koy defloo mooy ay mbokk taali ay ay taalibeem muy loo xam ne nag moom woo naar ci ci ci ci naan soow la guuxam soow la ndax ku wax Serigne Abou Mbacké rek tudd bool tudd tudd bernde tudd togg euh, ñii waa waañ wi la ñoom lii li ñuy def nii luñ xam la Euh, waañ wa ñoo déplacé wu jógee Daaru Salaam rek ñëwaat fii ndax am na waañ wu mag woo xam ne ci biir kër sëñ Abo la nekk yoo xam ne añ yi nga xam ne ñooy dem kër sëñ Modou Mamour bët bu set di dem ci jumaa ji di dem ci pénc mi di dem ci mboolem ñoo xam ne Daaru Salaam lañ nekk bu heure waxtu jotee yu ñëw xewlu ñii ñoo koy togg par ñaari fan lañ koy aayloo di togg añ di togg reer di togg ndékki bon lii luñ xam la luñ mën la tamit bañ ñëwee ba tey ci lii lañ nekk ginaar yi. xar yi nag yi giléem yi ñi daal la demee. waaw menu bi moom peut-être li ci changé du bari ndax xam nga ñetti fan ñeenti fan euh, soo bëggee di togg añ di togg reer euh, il faut nga préparer menu bi ndax euh, waruñ togg tey lenn tey ëllëg ñu toggaat ko. bon dañu war a changer togg gi te loolu maa ngi ci waxtaan ak jigéen ñi ñoom lu ñu war a togg lu ne buñ ci bokkee waxtaan rek man pare naa ci ñoom ñooy xam liy doy. ñooy xam kañ lañ koy tàmbali ndax luñ xam la du jar sax ma leen di dicter lenn waaye liggéey bi ñoom xam nañ ko mën nañ ko ci lañ dëkk waañu daal comme ni ma la waxoon rek waañu ñoo wu fële rek ñëw fii. bijou bi nag man du ma ko mën a xam ndax euh, sëñ Ablaye Dia dafa ànd ak euh, magam soxna Maam Anta fas yéene teral ab sëriñam euh, mën naa wax ne magasin bi waroon naa ubbi wan la ko dara manqué wul dara nag suñ magalee ba pare. lii des comme denrée lii des comme ay jur day mel ni bu màggal gi tàmbaliwaatoon mën nañoo tàmbalee foofu jëm ci kaw waaw moom xaarul kenn ci lenn vraiment ab sëriñam lay teral fii ci Poroxaan ak mboolem mboolem jullit bu fi nekk ba tax na fii dara jeexu fi bise bi nag peut-être moom dina ko xam mais xam naa que ne boo ko doon estimé tey jii ku la ko wax da naan déedéet ndax juróomi fan juróom-benn fan du caaxaan te gis nga mbooloo mi niñ toll añ reer ndekki. dara du fi jeex lu ñuy naan ci lu sedd ak lu saf suukar ak ci lu tàng dara du jeex vraiment sant yàlla bu baax a baax daal. sant bi li ci njëkk mooy sant sëñ Abo Mbacke ndax euh, ku lay xiir ci nga liggéeyal sëñ Touba kooku amoo fayam waaye tamit naa sant sëñ Ablaye ak waa këram mooy soxna ma Anta Dia ndax sama alal a ngi nii kaa ñu kaa ñu ànd liggéeyal sëñ Touba ah loolu lu extraordinaire la ndax li muy def nii ñun ñëpp ku ne am nañ yéene def ko waaye yàlla baaxee ko ko. waaye mu ànd àndante kook ñun def lépp suñ disposition te contrôlé wul dara te li muy def lépp suñ tubaa tax vraiment ñi ngi koy sant ci loolu. di sant mbooloo mi ma àndal ci liggéey bi tamit nga xam ne kenn rek mënul dara euh, peut-être lu mbooloo bu ñu àndee dina am tedd fil koo xam ne mooy ne ci kanam waaye taxul maa gën a xam wala maa gën a man wala maa gën a yey déedéet loolu yàlla moo ko dogal waaye mu ay nit ñu neex àndal nag waaye gis nga liggéey bi fi mu toll nii su ma neexoon yére bu weex taal lay sol du ma def dara te tellement xam liggéey bi ba nga xam ne bon maa ngi sant ci loolu ci baax te di leen ci gën a encouragé te xam ne seen bopp rek la ñuy defal liggéeyal sëñ Tuubaa moom la sëñ Saliou waxee rek moom lay conclure tëjee ko ku liggéeyal sëñ Tuubaa du la yërëm ndax xam naa ne bis dina ñëw ñun la la nga doon defal sëñ Tuubaa ngi nii nu mu mën di tollu da nga xeeb la nga ci doon jëfee kon daal maa ngi sant bu baax a baax waa di la santaat bu baax nag ci occasion bi ma may ba tax ma wax li ne ci man vraiment ci lu bari loo xam ne mënoon naa xëy di wax suba ba ngoon waaye résumé tuuti rek maa ngi sant bu baax jërëjëf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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokk yi fi teew ñoo ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay di ñaan ci màggug yàlla baaxoog Serigne Touba darajay Cheikh Seydil Mokhtar bis bii nu yàgg koo taxawee ci diir bu yàgg yàgg yàgg waaw moom nag dafa mel ni danañ am cawarte ngir wax ak yéen ci bis bii. ak kër gi nu yellu kër gi di këru Porokhane soxna su tedd si liggéey liggéey bu réy bi tëdd bi ñu jàppal ko bis àdduna monde entier di ko bége saa bu jotee ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi mën a ñëw ñëpp dañuy ñëw siyaare si ko ñi mënta ñëw it yob yónne yabal yéene kon yàlla na yàlla nangul ñi ñëw siyaare si ko waaye yàlla na nangul ñi yéene yoolub siyaar eh, kër gi ngeen ñëw nag benn ëtt la ci Porokhane waaye nun buñ dee yaatal dañuy wax Daaru Salaam xiiwal Daaru Salaam xiiwal ndax kër gi faw nu indi tuuti histoire ki nga xam ne tey mooy borom kër gi jiite liggéey bi di soxna Maam Anta yal na yàlla yàggal ko fi te ko te nu yàgg ko ànd ak moom moom day dafa yore jikkooy ndey ji seex xajoo ñépp yaatal ñépp yiir ñëpp suturaal ñëpp am yéene nag lu ma am bokk koog ñi ko fii fekk fii moo xam ab xarit nga moo xam bokk nga moo xam wëlëre nga fu waay bàyyi koo ngir yàlla ak yonente beeg jëmmi soxna jaare ñëw siyaar ko bu ñawoon bu sañoon da ñëw siyaare ba ca barab ba ba noppi nag ñëw dalak moom ba bis bi jeex loolu li mu yéene ànd ko nag ak Cheikh Abou Mouhamed xalifa Serigne Modou Mamoun mu am fii kër ci biir kër gi di jiite liggéey bi di sunu wasiila di sunu buntu ci kër Serigne Modou Mamoun di sunu buntu ci kër Cheikh Seydil Mokhtar Cheikh Seydil Mokhtar nag dafa amoon ab taalibeem wëllëreem ku mu gërëm def ci moom li ñuy def ci góor yàlla yi kookee nag histoire dafay nettali ne mooy lay bis bi muy alhaji ibrahima ja yàlla na yàlla fayal nu ko ndax alhaji ibrahima ja moomu moom dafa jëbaloon Serigne Touba 1902 bi sëñ bi jógee ci géej gi ba yàlla dogalee mu nungul ko jëbbalit da ko yabalaat Touré dénk ko taalibe bu ñax Ahmadou Fati ba nga xamee ne bii sun borom ñëw naa kab dogalam ba Ahmadou Fati bi wàcceeb liggéey mu yëkkati ko jox ko maam Cheikh Anta borom dërëm a ngërëm mu ànd moom fukki at ak benn jox ko ndigal ne ko demal sanc ndiyam ja jege sa néegum ndey boo fa wootee dañ la gaaw wuyu muy lu rëy yàlla dogal na kii nga xam ne tey mooy soxna Maam Ja di borom kër gi ànd ko ak rakkam sëriñ Abdoulaye Ja ni ngeen ko waxe ak mboolem rakkam yi mbokkal sëriñ Omar Ja ak Astu ak ay doomi bàjjenam ak doomi ndeyam yëpp dañu ñëw ànd ak moom jàppale ko ci bis bi soxna Maam Anta moomu yàlla dafa dogal maamam soxna Maguette Ndiaye soxna Maguette Ndiaye ndéem jala wàcceen am fa soxna Astou Dia muy waajur soxna Maam mii soxna Astou Dia ndéem la gane àdduna boo demee ndéem tey xam ne lépp lu baayam yéene woon ca dëkk boobee ba mu koy sanc soxna Astou jëmmal na dëkk boobee def na ko ba tabax na fa jumaa ñi di fa julli jumaa di fa julli waxtu yu juróom waaye ndox ma ñuy naan it leer lay leeral dëkk ba lépp dañ caa taxaw tem ngir ndéem mel ni dëkk bi nga xam ne mooy dëkk Serigne Touba yi ma sancal kon yàlla na yàlla yàggal ko fi te leeral ko soxna maam ta mii nag moo bàyyi ko ci diggante ñaari ñoo ñu ma la wax Serigne Omar ak soxna Astu yàlla na yàlla guddalu fanam te barkeel ab liggéeyam kon saa bu jógee képp ku yaakaar sëñ Ibrahima Dia da ngay jóg ànd ak moom waaye képp ku yaakaar sëñ gaawaan da ngay jóg ànd ak moom ngir sëñ Abou Madiane sëñ Abou Mouhamed mii waaye képp ku def xarit wala ngay wëlëra wala ngay mbokk da ngay jóg ànd ak moom ndax it nag ku neexaandal la koo xam ne nii saa bu ne kaay leen mu dem boo yëkkatee fukki dërëm jox ko mu jël téeméer teg ca jébbal ko borom Touba kooku day yaakaar naa ku yaakaar sëñ Touba ku ne war ngaa mën a mooy bisab soxna jaara mu jiite mbooloo ànd ak ñoom di liggéeyal soxna jaara saa bu ñu dajalee bu ñu amee téeméeri junni mu teg ca juróom fukk bu ñu amee ñeen fukki junni mu teg ca juróom fukk bu ñamee amee téeméeri junni ak ñaar mu teg ca ñeen fukki junni jébbal ko ki fi nekkal borom Tuubaa di Seex Muntaxa yal na ko fi yàlla yàggal lool te ko bi jaay Seydina Muhammad baal leen wàq nag ndax nekk nag di soxna maam Anta ja Ah, dañoo cee defoon ay bayit yoo xam ne yii ah, buñ ko nettalee dina tax ñëpp xam taxawaayab soxna maam Anta borom xol yu rafet yi dinañ ko àggale ci ci jikkooy soxna maam Anta ja nam mën a mel ne tax ah, doonut koo xam ne kii ni mel jikkoom yëpp doon na luñ mën a dajale ci ay kayit waaye buñ ci junjee tuuti rek borom xol yu rafet yi dinañ ko àggale kon onze billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bismillahi teema jóg fas a bismillahi teema jóg fas ko yéene ci waaja maam alhaaji sunu waaja caratam ya rek la aja soti bismillahi ci waaja maam alhaaji sunu waaja casatam ya laaja Cheikh Omar Dia sa yi ñoo sigal waaja bokki maam alhaji ya ak ku ñu woota nga soxna atto sa doom ye jox ndikal la maam ja alquran ja lislaam ja boole nan ca iman ja déglu leen ki tax way wee jóg di ndey ja di baay ja soxna anta njaay yamin ek magam sëriñ aas ja day tibal sëriñ aas da di sukal sëriñ aas ja te jayi sëriñ aas ja lay wuyoo sëriñ aas ja day ñaqal sëriñ aas ja di ñukkal sëriñ aas ji di ñawal sëriñ aas ja ay dara yamuy waaji doomi bàjjani aas ja moo di bàjjani doom ja te taxul mu naan aas ja man li nga ci rek ca sa jikkoy turandoo ja yaa ko jël ba jël soxna Anta Njaay moo doon jëf ba jur ilimaan ja aj nga Makka ngir buur ba umra ngir yonentam ba te waji aas ja oor ba daw nga war a julli kaay ba soxna Anta bu ba day gërëm lanti noor ba ndax su dula woon ak baat ba kon du mos ca ni naay ba kor gu nekk sa ceeb ba sarse nañ ko ca poor ba ñëw nga yor sa pasteef baax yaak sa sang boo baax ba boole xejji baak seen ba ak murit ba tijaan ba boole dag ba ak buur ba de wasaare lu ceeb ba di tegaale càmbaar ba sukar ak kafe ak baar ba teg ca ndaw lu xam biir ba daaru teggi nga tuur ba soxna anta xol bee rëy te rafet te lii du jey réew mi mee panaan cey la teggi te soxna Anta day xëy tey woore seen ko fi mag tey woddu leen na ñooy sama ndey noo ko seere ji jëfa ay soxna Anta yaay sunu ndey jajjo ndaw ji du otto nu fay daxa jukkal nga leen jëfi ndey kenn du faale sa ndey soxna Anta yaay sunu nday jeeg ju ndaw ji du ootu na fay ndax jëfal nga leen jëfi nday kenn du ootu faale sa nday soxna astu yaa mën a xëy waande anta gontu na tey fii fii da aru la ay amee ndax ci tool bu mag bi la day lim fi ci jeeg tey ak lin ko tudday doom tey moo ko jëf ci ba ke nday soo duful ngoyal kala ngoy soxna anta def ni la ngoy ndaxte yaa ngi ngoy li nga ngoy koo fi bokkalul li nga ngoy yaa ko ba gën la ngoy soxna anta def na la añ loo bañul bañul ku ko añ ku la kañ ndaxte luy nuroog wutu tur ak damul la rek nga bañ soxna Anta kenn du ko bañ ku ko bañ sa bopp nga bañ ku la bañ nga koy joxe añ may ko jàmm du otu la bañ soxna Anta yal nanga nga añ jéem liggéeya daa taxa añ yàlla may la ab sañ-sañ ngay dogal di ñot di di gañ soxna Anta yal na nga gañ suñ wëtee nga leeri sëñ Bamba yeeg sa carte njañ yooyu carte koy mën a gañ soxna Anta bu su abee may wera kaanam ab sëriñ bu soxla Tuubaa ndaw yónni taalibe baayam soxna Anta sa tab ji ku sañan di ab jaamam mbaa nga dem ci kër yaayam def raxas katab saalam soxna antam baaxam ji man ko tànn ca yaayam waaye yiw gi lislaam bi man ko tànn baayam soxna anta njambaar gi man ko tànn ca maamam waaye yar gi ak tey gi man ko tànn ca sëriñam Cheikh fii la ayam Cheikh Sëriñ Ja ci mbaaxam laay dagaana ca booram ay rakam ak wuki atam ñëpp yàgga aw mbooram Cheikh Sëriñ Ja ci mbaaxam laay dagaana ca booram sëte yëpp aw mbooram yàlla dolle ay leeram sët ye yëpp aw mu oram yàlla dolle ay leeram sët ye yëpp aw mu oram yàlla dolle ay leeram Cheikh soxna Anta fii la man Serigne Ndiassy en jaamam jaam seyir la jaam baatin teg ca tey were Anta fii man Serigne Ndiassy en jaamam jaam seyir la jaam baatin teg ca tey were kaanam allahumma salli ala sayyidina